ak maam Babacar laay génn àdduna 1966 jamono di dox di dox ba ñu toll si tey maam Joon génn àdduna génn àdduna ak maam Joon nag damay wax ne moom mooy période bi gën a metti ci kër Seydina Limaamu ndax maam Joon moo doon dernier doomu Seydina Limaamu bu góor ginnaaw bi maam Mbay génne àdduna ku desoon ci jamono bi mu génne àdduna en 71 waxuma sax feneen mais ci Yoof gii. bëri na fi ay kilifa yu taxawoon waat ci yàlla ne laayal nag fi lay jaare tas seen yonente gi ñuy woote doomi bàyyi laay ak xam-xam yeeg may yi leen yàlla mayoon sta téewoon nañ ko ba toll fi waaye tey nag la laayal nar a tas ndax boobu xëj na xeeb bu ñu xeeboon sët yi nga xam ne ñoo war a utu jal boobu waaye damay ne boobu comprendre foofu it mën a ubbi benn parenthèse seen alimaamu bi mu génnee àdduna am na ay mag ñu ma waxal dénk leen ñu mel ni ay soxnaam ku mel ni sunu maam Alsaan Njaay nga def si ay liggéey yu am solo ndax yot naa ay enregistrement ne yow tonton Jël ak ñeneen demoon ngeen enregistré leen ñoom maam Alsaan Ndiaye ak ñeneen ak maam Sey Ndaw ak ñeneen ñoom ñoo doon yaay yi nga xam ne ñoo ëmboon njabootu Baye Laay bu jigéen googu ñooñu Laay boole woon dénk ak ku ñuy wax Serigne Maam ak Jaxate sa ngaa xam moom la doon dénk seen naa ma génn àdduna mu doon soppite gu mag gu am si kër gi ndax si la premier set war a utu xilaaf ak seen alimaam mu doon damay wax ne période flottante ndax période loolu mu compliqué ndax ki war a uutu nit la comme ne kenn xamu ko te comme kenn xamu ko nit ñi bu ñu la xamulee wala boog duñ la gis nga yor ay micro di waaraate automatiquement dañ lay xeeb tey ñi ma àndal ci sama jotaay bii par exemple li ñuy délégation bi àndal ñëw man maa si yor micro di wax mais am na si ñoom dañu maa leen mag la ñu xam xaw ma ko ñoo ma ëpp xam-xam fuuf lii rek donc tey boo ma gisee yor micro yi mën nga xalaat ne man xam naa as tuut fekk na ñoom ñoo ëpp xam-xam fuuf loolu mooy dañuy tàmm di gis nit nga yor micro ñu ne am nga xam-xam léegi keneen ko yoroon micro ñu ne xamul dara jamono boobu ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon war a wax ñaar la si nit ñi miinoon muy Serigne Ablaye ak sunu maam euh, maam Alassane maam Rane yàlla def ñoom la ñu miin yàlla mooy leen xam-xam bu bëri nag ndax ñoom damay wax ne waxuma sax si euh, euh, maam Rane wala Baye wala seen naan keneen dama ne Serigne Ablaye kese si jamono. yàlla mayoon ma xeeti xam-xam yoo xamante ne bëri na ñoom ne ñoo moom ma tolloon ay at di ay waaraatekat yu mag ci Sénégal gi mais fu ñu toogee dégg suñu Ibrahima ba pare bu ñu paree dem ubbiwaat seen téere jàng ndax jàngalaat bu mu leen di jàngalaat mais ci jamono boobu seen mag yoo xamante ne kenn xamu ko woon ndax kenn musu kaa gis mu yor micro di wax kenn musu kaa dégg mu toog di waaraate fen moom mooy ki mag war a jiitu toog ci jitaay bi toog ci jël bi te nit ñi xamuñu ko ñàkk xamuñ ko ñàkk xam ndax gisuñu ko muy wax li nga li nga comme euh, tàmbali gis daal mooy bu heure liggéeyam jotee mu sol yére euh, liggéeyam dem bés sa baaba nee ma euh, dafa dem di waxtaan ak moom bés mu ne ko jamono bi may liggéey si biir marine bi nekk mécanicien boo ma daan fekk à fond de cale ma sol samay yére ba nuróog sama mbokki manjaago yi liggéey sol torpédro ak jegetu cuir di làkk manjaag boo ma fekkee ñun la man ñi doomu si naa ma joon laa ab laayan laa wala ab ab olof laa doo ko gëm ndax nuróo gu ma ñoom ci sama sol ak euh, man gu ma man seen ab kon nit ñi loolu lañ xamoon ci moom ne kii ab euh, navigateur la wala kii euh, contremaître la si toolu buur mu war a toog mu nekk période bu compliqué gaa yi ne laayaan day tas ma ne tey bu fekkee jamono boobu la ñu waxoon te it ña ko waxoon du ñu woon ay nit ordinaire ndax ay borom yi xam-xam lañ moo xam xam-xam bu ñuul la ñu wala xam-xam bu diine si fu leer lañ ko tegoon fu leer fañ ko tegoon nag si seen baatin bu ñu gisoon la waaye li ñu fàtte woon mooy boobu Seydina Limaamu bàyyi na fi nit ñu war ñu war ñu war a ñu ay jigéen ñu war a saytu kër gi jigéen ñooñu mu fi bàyyi woon nag dañ ciy jëlee sunu maam ji xam ne tey ëttam lañ ñoom muy sunu maam ay te sunu maam euh, sunu maam ummi mu Seydina Limaamu sëriñ Mamour ñëw ginnaaw bi ñu installé Baye Seydi Thiaw ñëw ziar si ko bi mu ko ziaree nag Seydi Thiaw lenn rek moo tax ma ñëw dama ñëw pour jaar si la daal di lay masaw sa wajur wi fi jógee waaye fàttali la itam ni sa maam daf ma dénkoon bi muy dem ne ma dénk naa la sama njaboot waaye njabootam boobu ma dénkoon boole si woon set yi doom yi la ma waxal man joon mii laa doon xaar si àdduna ba fekk na maam maamu jeexate am na téeméer ak nangam mu nekk man joon mii laa doon xaar comme nag man joon dem na maa ngi lay tàggu di la yëgal ne man mii it damay dem keroog nee nañu sëriñ na sax ne ko sama borom day yónni na malaaka yi ñu tibba si déegi kaw sa ñoo nandal ma si ngir jaxale ma gën ak àdduna si daa ma dem sëriñ Mamour keroog wax na wax na ko loolu keroog bàyyi si yow ñaanal na ko mu génn topp pot bi ba fii tey sama nijaay mbay kuy dëkk mu toog si banc bi wax fak ñi la muy wax ñoom jëlaat oto ñibbi teguñu si lu yàgg sa la génnee àdduna léegi may wax ne bu fekkee Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di ab yónnante wax ne moom yàlla xamal naka li war a xew bésab 1909 boobu mu jullee ko tam bu mujj ba keroog bi Israfil wala ci bufta bi muy naka la xamee ni jamono war a lënte mu jël ay doomam di ay doomam yooyu yor ay martabay yonent mu jël leen dénk leen sëriñ Mamour ngir mu leen di wattu ak di leen di conseillé ak di leen wan yoon mu dem ba ay sitam xam ne la doomam man xëj na sëriñ mu rukaa man ndax doomam yooyu ñoo tarba ñoo tàggat ñoo tarbiya sitam yooyu mu war ne ne ka ma leen dénkoon bi jeex na may wax ne kon ñooñu ka leen dénk war nañu laaj kon seet leen dénk ndax bu dee seen i baay dénkaane woon nañ leen waaye ñoom seen maam dénkaane wu leen sëriñ Mamour kon ñoom kat leen war a dénk ndekete boobu Seydina Limaamu yàlla xamal na ka sa caat mii di maam ummi bàyyi laay mooy ki nga xamante ne bu ñëpp demee mooy kii mujj ki pour war a li tubaab di wax boucler la boucle mooy ki war a tëj yëf moom mooy fekk période bi war a gën a compliqué ndax mooy fekk période bi nga xam ne sëñ dañu war a topp jamono la boobu nag war a nekk jamono bu doy waa xam ne yàqkat yi dañuy bëri dinañu jaar fii euh, fom euh, kii pour euh, xam ba diw dinañu jaar fii pour xam ba diw bul topp diw bul topp diw ndekete boobu yàlla xamal la maam limaamu nekk di am di nga sa caat mii di maam ummi mooy ki fekk période boobu waaye dina doon kilifa gu mat kilifa dina doon sàmm bu mat ab sàmm ma ne kon mission boobu yàlla dénkoon wala boog seen maam dénkoon sëriñ maamu mission boobu keroog dafa teguwaat si kaw sunu maam euh, ummi bàyyi la gaa ya xam limaamu te xam Baabakar donoy njiit ñeeñu seen donoy ummi caw doomi Seydina Ilaahi salli wa sallim alal Mustafa may nu jëw di yuutu yegal ba dem sama Ilaahi gaa yi xam li ma mu te xam Baabakar donuy ji ñañu seen donuy Umi Jaw doomi Seydina Ilaahi dama bëgg dama bëgg accélérer. parce que temps bi dama jot dama bëri lu ma dugg si détail mu xaw a jël ci temps bi dama bëgg tënk après jox leen ngeen si kat bu ñu paree ñu teg sëriñ Diall jërëjëf jërëjëf laay waxtaan si wetu yi donc di wax rek ne euh, sunu maam ummi moom nag foofu la joué rôle bi gën a mag tey si sunu bët ndax boobu damay wax ne sëddi ñoo fi ne mu nekk jamono bu compliqué yàlla dimbali leen seen bàjjen nekk waaye ñoom. ñu fonkoon seen bàjjen bu fonk gomte ne boo leen daan gis dañ naan dañ ko ragal bés mos naa si wax ak sama papa ma ne ko euh, bàyyi seen caw ba rôle ban ban ban relation la ak magi diine ji ak kilifaam yi nga mel ne tey ku mel li maam Oumy Baye laa ñoo fi nekkoon mu ne ma góor googu musuma gis mu wane luy wane ak tiitaange ma lu wane ne maanaam nit la koy tiit ndax mu wóolu woon mu ne ma waaye boo ko daan fekk ak magu diine ji wala nga fekk ak jataay ak bàjjinam da naan daf leen ragal ndax wor ma ak i teggin yi muy jëf jëme ko si ñëw Bassirou Thiaw moomu ma ne bàjjinam boobu di maam ummi fekke njëlbeenu xilaafaam boobu en 71 joué si bu am solo yàlla dogal daaw ñu def dara te dama yónnee si moom laaj ci xalaat ma joxe si exemple bu bu bu benn exemple bi Bassirou Thiaw jëlee décision ne sama rakk jii di Mamadou Bachir. laay fal mu doon imaam si jàkk ji mu nekk loo xam te ne tey képp ku jege imaam Mouhamadou Bachir jamono boobu ñëw nga seet si Baye Seydi Diaw pour wax ka ne dama bëgg cër bii xam ne jox na ko Mouhamadou Bachir nga teggi ko ndax Bachiru xale la bàyyi mu gën a yokk xam gën a jàng kër gi bëri ay kilifa yoo war a mën a jàkk ji bi ñu ñëwee wax loolu ku mel ni Baye Seydi xam ne boobu moom yàlla nga koy yàlla jox na ko bëtu borom jamono muy mën a gis lu kenn dul gis di xam lu kenn dul xam. moom xam na lan lay def boobu gis na ne at yi si zaahir xëj na néew na néew goo xamante ne bu leen teelu la responsabiliser pour xamal nit ñi ne ñii ñoo war di relever ëllëg ëllëg dina compliqué mooy tey lii sunu di jaay Mambay laay def te ñëpp xam na ne école bu Mambay laay yi fa génn bëri na ay rakkam yi fa génn bëri na ku mel ni Issa Diop ak maam jot ak ñeneen ak ñeneen fa la ñu génne tey maanaam ñàkkul ku mu waroon mën a yebal pour mu ñu def guddi gii. suñuy kilifaa ngi si dëkk beeg lépp waaye xam gu mu xam ne jamono amul kenn koo xamante ne dama naan ku fi sax éternellement ngay doon bu amoon da ci jamono ku fi war a sax damay ne Serigne Abdoulaye moo gën a mérité si jamono jii pour waroon doon fi sax ndax njariñ gu amoon si kër moo xam sa jiitu la moo xam si bi mu ñëwee toog ni mu stabiliser kër gi ba benn coow mosu fee ji dama naan faral di wax ne ñu ngi ñaan Serigne Abdoulaye yàlla gën a gudd fan mais gudd fanam googu. ñu koy ñaanal ñun ñëpp coono rek lay nekk ci moom ndax day gën a gudd fan du gisati ku mu xam ndax ñi mu xamoon miin leen ñëpp dem nañ jiitu ko maama man ka nam ma ma di xaar mu ñëw pour ñu ko waaye ñun kër gi nekk na tey configuration nga ne bu sëriñ Ablaye teelee dem rek lu bëri mën na jaxasoo yàlla fi gën yàgg rek di ñu gën a gunge ndax kër gi gën a mën a stabiliser balaa muy dem dañu fi bàyyi noonu kon bu amoon ko fii sax moom lay doon suñu kilifa yooyu nag xam gu ñu xam ne tey ëllëg war nañu préparer génération bu war a mën bokk si ñuy wesaare émission comme ñoom lañ nañ ko daan defee moo tax tey ku mel ni mambay tey war a yëkkati na ma demal nga wax ñi ma ëpp xam-xam si kër gi bëri na ñi ma gën a xam mbir yi bëri na waaye damay wax ne bu la sa kilifa bu la ëpp xam-xam fuuf yàgg laa jàngal dénkee lu mel nii daf lay mooy maanaam daf lay soññaat ne la demal nga gëstu ji demal nga yokk sa xam-xam ndax bu ëllëgee dina la yónni si lu war a gën a compliqué lii te boobaa ba amul xam-xam di nga ñu gàcce kon yónni guñ la sax dama naan fit doon si yow mujj gi ndax di nga dem pour jéem sol loolu mooy li waral li moo tax bi bàyyi coow fale imaam Mouhamadou Bachir te coow li bëri sunu maam yaafaati ndeysaan dem seeti ko nekk sang bi cër bi nga jox Mouhamadou Bachir ñu ngi la ciy sant bu baax waaye cër bi dafa teel si moom bàyyi coow nekk yaay mu nekk waaw mu nekk ndax pour encore waxaat la fonk bu ñu fonkoon soxna yi si kër gi at yi bàyyi coow amoon mu ëppoon at yi yaayam jooju amoon waaye moom gisul yaayam jooju martabay Mame Babacar lay gis moom soxna si Mame Babacar mu ne ko yaay yow demal nga toog rek nga bàyyi xam naa li ma def mais taxul maam yaafate ndax waajur dina am yërmande si doom joo xam lu mu ragal ne war na ko mën a gaañ da ciy def itte ba ba loolu du ko lor ko jógee ñëw na dem dem na seet yi kam ne nag mooy kilifa Bassirou Diaw si jamono muy sunu maam ummi waaye pour wan la rôle boobu xam ne dañ ko yoroon ak baatin bi maam ummi moom yoroon bi sunu maam yaafaate ñooy wax ak sunu maam euh, ummi bàyyi la am ummi daf ko déglu moo fa pare mu nekk Yafa euh, Yafaati mu nekk laay mu nekk dalal sa xel di Thiaw mi yenn yenn bii Mamadou Bachir ak ay atam lu mu néew néew néew Sey euh, Seydi Thiaw dina ko téyel tànk ba li nga si ragal kon da gis ni kon ñoom amoon nañu benn synchro euh, dañ doon liggéey en de façon maanaam moom bàyyi ci waxtaanu si décision bi waaye moom maam ummi xam na li bàyyi ci def te xam na la sa nekk ndekete boobu la maam ummi xam te waxu ko woon mooy. maam Babacar Laay ba mu mujjee diisoo ak moom yëkkati na téere xutbab seen alimaam ba xutbab xutbab xutbab jël na xutbab seen alimaam ba bind ko moom bu mu bind su loxoom jox ko maam ummi bàyyi ne ko bu demee yow Mamadou Bachir sama ginnaaw toll ji si war a yor jàkka na nga jël xutba bii nga jox ko sëñ ba soxla xutba boobu amul xutba bi mu ñëw seet si bàjjinam pour mu ñaanal ko ne ko d'ailleurs sax dama war a préparer ndax suba laa war a xutba xutba bi maam ummi xel ma dem sa la ko maam waxoon mu daal di dugg ci biir génn lii nag lii de sa bàyyi ba mu ko joxoon ba mu koy wax nag amaana gisuma woon la mu gis mu nekk nee na ma nga jël lii c'est le sëñ bas comprendre ne kon loolu bàyyam mu ko waroon jox mais amee comme ne ko fi nag bàyyi seen coow moo ko waroon def déclic bi mooy pour mu doon euh, imam bi waaye mooy ko waroon joxe la nga Bachir war a ko si jàkka ji kon loolu dafay wanewaat encore une fois rôle bi nga xam ne maa ngi wax ne jigéen ñi ñooñu joué woon nañ ko si kër gi bëggoon naa si gën nag si exemple ndax dafa am jamono euh, am lu xew si kër gi bëggoon naa sunu papa jal sunu nijaay jal caw fekkee waxtaan bi parce que moom nettali na ma ko ndax moom mooy tey témoin ba fekkoon la xew sa biir néeg boobu keroog dafa am xew-xew bu mos am si kër gi am kilifa bu njëkk ba si yàgg rek yàlla jël ak ruubam si kër gi fii mu génn àdduna bi kilifa googu génnee àdduna docteur Pouy constaté ko ñëw docteur Pouy moo leen mooy Idrissa bi ñu tuddee hôpitalu Grand Yoff bi kilifa yooyu yëpp si kër gi si loxoom ñu si ëpp eh, bi ñuy gën àdduna fekk na ko maam Ndiol bi muy génn àdduna juróom nit da ko fekkee juróomi nit yooyu Idrissa Pouy moom fekk na ko bokk na si bi mu ñëwee constaté daan ne daan ne ah kii di say dem na ñu ne kon nañ dem woowu ji bàyyi si di caw mu ñëw bàyyi si caw ñëwee dugg si néeg bi daal di xool ki tëdd xam yàlla xamal na ko ne kii deewagul bi mu ko xoolee. daal di am ko mu woo si néeg boobu nekk demal si sama si demal si libaas jonn muy sunu maam libaas jonn mi fii jóge bu yàggul yàlla na ko yàlla doolu yërmande nekk demal nga ne ko dafa jël course gi nga xam ne moom xalifa bi yor jox ko kooku nekk demal si sa bàyyi libaas jonn nga nekk ne la ubbil xabru bi nga def nangam ak nangam ba dee nga ñëwaat mu ñëwaat toog ab diir mu nekk demal sa bàyyi libaas jonn ubbilaat la nga indil ma course gi kooku indi course gi bàyyi ciow li coow jël course gi bëgguma dugg ci détail ndax ñu ngi kay tek ci internet bi té am na loon dane boo ko waxee nit weddi ko bu ci déwé dem safara ndax kérok ba mag ñi liggéey jakk yoof bay ñibi yëg ci auto bi di dem nan laay laa ilaa laa la woon fa màkk fegn ci saw ba ñu ñibi yegg Dakar ci tilleen ci Sina isa kérok nee nañ Sina isa xaru leen ci biir kër gi ci buntu kër gi leen xaar ba ñu ñëwé mu nuyu mu nuyu leen wax ak ñom wax bu ka si kàddu gu sedd ñu leen ah laay jërë ngeen jëf ci ci si si waaye waaye woo ngeen doon way si yoon bi day sama borom dégluloo na ko sama borom xamal na ma ne bi ngeen koy way si yoon bi am ngeen ñoo leen romb ñu weddi leen wax si wax ak ŋàññ sama borom xamal na ma ne ñoo ñee doon def weddi yooyu ku si dee safara nga jëm mu leen laay way yooyu ay way biir nekk la ak way ëtt bu leen ko génne si biti ndax boo leen ko génnee àdduna dégg ka weddi ka te bu ñu si weddee day dem safara kon ñoom ñu bëri woon ay yërmande lañ si côté boobu mais c'est pour dire que keroog bi bàyyi si defee loolu mu ba kilifa boobu jotaat ak ruwaam ba ay wax na ak moom keroog keroog def na fa kéemaan boo xamante ne boo ko nettali woon tey dina yéem nit koo xamante ne euh, te dina ko ab gis-gisam am xam-xam ba jeexal téere yëpp te ab gis-gis bu gàtt Sénégal bëri na ay borom xam-xam mais gëmuñu bàyyi lay ndax lu seen xam-xam itam moo tax waa ji ne xam-xam du jàng téere ki laay loolu mooy xam-xam tey boo leen waxoon ko bàyyi laay amuñu yaatu dina nangu ko keroog ba bàyyi sa defee loolu mu def daal di wax ak moom la mu wax keroog rangooñam tuuru na mais ba rangooñam tuuroo mu jaaxle moom mooy xalifa bi de mu ngi tegoo ñaari kalaale si naali moom dafa daal di génn si kër googu daal di waax daal ñëw woo bàjjina mam ummi mam ummi ñëw mu jàpp ko si loxo ànd moom ba si néeg ba mu tëju moom mam ummi ak kooku xam ne loolu daloon na daloon si kawam ñoom ñett ñooñu keroog ñoo réglé la ñu réglé ba ñu réglé la ñu réglé pare sa dafa mbir yooyu yëpp yàlla réglé yàlla dimbali kilifa googu ba fanam guddat lool lool lool macha allah muy doon luy sante yalla donc c'est juste pour montrer rôle bi nga xam ne ni yag nañ am ci kër yi kon bu demee ba jëmon yenn problème wara am ci akhlu lay nit ñëpp loote ci war ko régler damay wax né war nañu xoolal nan la mag ñi fi nekkoon di wéy juru suñuy maam yi fi ne wala bok di suñu imam ñu nak ñi ne nak lañ daan régler problème yoy li leen ko doon yombal nag mooy diisoo ak jaxaso ak euh xedna gisante bu bari buñ doon am ak seen i jigéen ñooñu waaye bu leen kenn sañu woon wax seen i jigéen ñi sañul leen wax wax nañ ba tay yow maam joon sa maam ay na ay yoon yu dara am ci kër bi mu toog këram woné wala mu seedi jaw té ba bàyyi soo xalifa bi bàyyi soo sol dem uy ji kon ñom daaw ñu xeeb ay jigéen di leen jox seen ciir ba ñu mom ak di leen déglu lu buñ leen waxee ñu mëna jëfé li leen seen jigéen bu démé nak ba kenn mënul wax kenn dara man mënoma yedd ndax la nga ne boo ñëwee yedd moom gis sama bopp c'est que y a problème te pourtant waroon na mën a am jigéen joo xam te ne bu kenn mënul si man dara sama tante lay doon wala sama yaay lay doon wala sama jigéen lay doon ku mën a ñëw wax ak man ma bàyyi chance boobu la sunu maam yooyu amoon loolu moo leen mayoon ñu bind comme ni ma koy waxee toujours les plus belles pages de l'histoire de la communauté Ahlou Laye damay wax ne yàlla dimbali na waa Ahlou Laye ba ci ñetti xalifa yii la si Baye Sidi Thiaw si Mame Rane ak Serigne Abdoulaye ñoo bind les plus belles pages de l'histoire li baay yi ñu uutu mooy diisoo gu ñu doon diisoo ak jigéen ñooñu foofu nag laay daanele kàddu gi ci wàllu woowu barkeelu ci cinq minutes ci sama maam jatu ndax yàlla daf ko dimbali woon yar googu ma wax ak taxawaay yooyu ma waxoon ne moo nekkoon ci yaayam di wéy juróom maam euh, Oumy Baye lay noonu mooy yar bi yàlla defoon ci moom sama papa wax na ma ne ne mosul gis ñaari nit ñu am complicité ba mel ni complicité gi doxoon ci diggante Baye Seydi Thiaw ak maam Jatu Jaañ loolu nag man mosuma ko woon xam mu ne ma amoon nañ complicité boo xam ne boo leen daan fekk ñuy waxtaan da nga naan ñaar ñii nii ay xarit lañ ndax euh, jaxasoo bu ñu kii da nga naan ñii ay morom lañ ndax euh, minante gu ñu minante ko mu wax ma ci nag lu bëree bëree bëree bëri ci ay cas yu am maam jëdu sol daal la muuroo tolam te kenn du xam li xew dugg wax ak bàyyi si di caw balaa ñibbi këram loolu di rek la ay yoon yoon yoon mu dooroon soxna su tedd su bëggoon njaboot seen alimam bu daan ñëw di ko seet di ko yëgal cantu bàyyi si di ma ànd ak momar mii ak ñoom ma abdu ak isaa sama mag bu ñu ñëwee di wax ak moom bu paree bu ñu gisee déjà rek automatiquement da ngay gis mbégte gi nekk ci xolam da naan ñii lay samay ah say samay chéri ñoo ñëw bu ñu ñëwee bu ñuy ñaanal day jël loxo yi di ko diw sunu yaram am na benn bés bi ñuy ñëw rek fekk maa ngi yar njañ loo xamante ne boobu dëkk bi yëpp a ngi koy mbamb ndax karaw gi di mu meloon macha allah ma bañ mu gis karaw gi ma daal di sol mbaxane bi ma ñëwee moom si boppam moo sumi mbaxane bi jël loxo yi dugal sama bopp raay boppam beeg yëpp dama xëy un jour boobu fekk ne ñëpp wax nañ pour ma wat man leen duma ko wat sama maam ndoy boobu wax na ay yoon yoon mais daal keroog ba maire bi defee loolu ma def ñaan kii sama bopp bi dama xëy un jour rek man maa sama bopp maa dem jël décision yàlla dimbali que mu fonkoon njaboot ku fonkoon ay càmmiñam loolu muy Baye Sidi Thiaw muy membre mu si impla ak keneen ba si Chérif Ousseynou Laye nettali nañ ma ne Chérif Ousseynou Laye bu daan tukki maam jëf daan na fexe defal ka booli beñe jox ko sunu ñoom yaay maam Kumba wala doomam bi euh, sama jigéen bi ñu yanu booli bi dem yóbbul ko Chérif bu Chérif demee ba ñëw daka daal day ñëw nekk ah jëtu jaan man day beñe bi ma defaloon mën naa la ne tàmm ma lekk àll mais tukki bi yëpp beñe yi ma joxoon laa doon xewloo si sama sama durée bi ma fa nekk yëpp. donc loolu dañ ciy jàng ne relation yi doxoon seen diggante du woon ay yi ay doomu ndiyaay ak doomu bàjjen wala sunu ñaari baay bokk déedéet ñoom ku si ne boo gën gis sa morom da ngay jàpp ne kii maag moom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey moom ma Oumy Baye laa ko jur kër Sénégal Issa ko jur bu doon si jamono bii booy wax dañ naan parce que ak mbokk dafa changé sunu jamono li ñuy woowee ak mbokk si jamono bi dafa soppeeku bu baax tey nit ki pour moom lan mooy mbokk sama jabar samay doom pare na fi kii ma bokkal ndey ak bàyyi même bu dee day fande sama yoon nekkul si moom ak ak waa këram gis nga fi comme dañ dafa toog am problème inscription ndijaayam toog na am moyen nga ko fayal du ko fayal ndax ak mbokk dafa changé ndax jamono daf ñoo yàq ñoom nag li ñu doon jàppe ak mbokk mooy comme kii bàyyi laay maamam rek maag moom bokkal ndey ak bàyyi noonu doon fonctionné euh, mbokki bàyyi laay si biir yow xam ne tey bokkuñu ak ñoom pas-pas damay ne maam jotu bokk na si ñi nga xamante ne si kër gi ñoo saytu diggante boobu ba diggante bi yàqu ndax bari gu mu bëri woon lu mu daan dem di jëfante ak ñoom ku fay ngénte mu sol dàllam dem wéttali si ngénte li dafa taxawaay ya fa war régulièrement daan na jël ay kolak ay teraanga yu nekk xaalis dem di leen ko dimbali si seen i xew ak leen ndax rek suqali mbokk yi donte xam na ne ñii gëmuñu maamam waaye moom mbokk gi lay parce que ñoom dañu xamoon lan mooy importance mbokk ak lan mooy bàkkaar bu rëy bi nekk si wax wax ju dog ak mbokk wala posé acte bu dog ak mbokk loolu la leen yàlla dimbali woon kon nag euh, sunu maam jooju ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk ay leeram sa ila yi ne waxtaan bi nag dina doon waxtaan bu xaw a euh, doy waar ndax ki doon wax ab ndonga la bu néew xam-xam waaye bëggoon mbir yi dox bi ma ñëwee gis ñu changé estrade bii toog euh, indi ko fii dafa am si lu sama xel dem dina bëri comme bu ma gisee ma toog fii dina ko jaaxal dina ne pourquoi diw et pas diw et mais bu boobaa dina day juum ndax sama maam Baye Sidi Thiaw bi nga xam sama yaay yàlla dafa dogal moo doon le fils spirituel de Seydina ndax kër gi dafa am nu doomi Baye laa yooyu ràbbante woon seen i ma njoon la yàlla dimbali ak maam Baye ñu am ay doom yu góor yu dund Seydina amoon na ay doom yi dañ teel a ñoom ñu ay doom yu dund Seydina ma jël maam eh, Baye Sidi Thiaw daal di koy féetale maam Babacar daal di jël sunu maam raan féetale toog nañ ay yoon ba taay maam raan di wax ne sama maam Baye Seydina Issa moo ma yar moo def si man alxuraan mu Baye sa Thiaw bi maam Malick Mambay génne àdduna moom la Mambay doon xoole ab taawam yàlla dogal bi mu demee ba war a génne àdduna damay wax ne bi mu waree summeeku te amul doom ju mag ju mu war a mën a summeeku dafa jël la mu waroon summeeku summi ko si Baye Sëriñ Thiaw te loolu mujj naa feeñ ndax dem ba la ku dem ba noppi maa gis maam Babacar laay ibnu imaama laay demal si Seydi Thiaw mu seen naam leen boo demee soo sa aajo faj te nee nañ maam Babacar turam wa demoon na ba Côte d'Ivoire ba jàll gi dee ki gànnaar fépp siiw na wax ma tey ban sëriñ si laayaan moo am turu si foofu ci jamono bi amul moom sa jamono jooju la naan turam ba demoon na ba Côte d'Ivoire ba jàll Guinée ak Ghana Afrique ak sous-région bi yëpp euh, kii na kooku mu summeekoon si moom yàlla dogal appel di jot kër gi xaw a jaxasoo ma am si tiitaani woo kilifa ya ma mën a woo ne leen dog leen ay limu ñaan ñu dem ñu ñaan si xamul seen alimaam ngir jaamu am si kër gi ñu xaw ko yeexal ma tëdd guddi ñu won ma di caw du ma sax bëgg di faral di nettali ay kii mais dafa am lu si bëgg fenn ñu war ma bàyyi si di caw mu woolu ma ñëw mu ne ma dama ñëw pour régler problème yi am si kër gi sa noonu la ma ko waxee nag ne ma sama camp de man maa ngi ko samp sama ëtt baay Babacar bi ma ñëwee mu ngi sol dara yi perkaal ju weextal ma ñëw reetaan mu wanul dara lom te ne kaf la ma ñëw nuyu ko bi ñu ñëwee xelme bi nga xamante ne moom mooy camp baas base bi muy wax ñu ngi ko samp fii fii nii tey ma toog wallahi alazim fi lañ ma woon fi la farankulaay toog daal di yëkkati kay feuille yu njëkk yi mag ñi dana bind moom la yëkkati loolu beneen pile bi war a toll loolu presque mille pages mu yëkkati ko di ko yëlëb nii man téere bi nga gis ma yor ko ay bayit li way la yom ne maaka taalif way si sama baay Babacar mat na nangami bayit damay bañ wax lim bi parce que lim la moom ne dafa jàppal lenn si ñuy liggéey wàllu asar bu ma waxee lim bi dañ ko xam mu ne ma dafa jàpp lim boobu mu ne ma nombre eh, lim boobu laa tëgg si ay bayit di si way sama baaba baay Babacar Laay nee ma di si way sama baay ma joon nee ma di si way sama baay Sina Isa dana ma di ko yëpp sama baay Babacar laa si way bu ma dama yaakaaroon ne jàng yi fële la ñuy teg estrade bi moo tax bi ma ñëwee gi ci def estrade bi ma ne kon day amul dara lu ñu war a jaaxle ndax la ñu woowoon moom mu toogee fa woo ma fa ma ñëw toog fa fekk ko xëj na tey looloo waral yi kon kër gi asaar amu fi fi may wax daara wax ji nag mooy kër gi dama bëgg jigéen ñi nañu leen jox cër bi nga xam moom la ñu moom bu leen ko joxee kër gi ne teguwaat fa mu war a tegu mbir dina doxee dama war a doxe ndax am na loo xamante ne yàlla defeel na ko suñuy kilifa kilifa yi yi fi ne tey yàlla dimbali na leen ñu am yërmande goo xamante ne lu ñu jàpp lu mu garaaw garaaw garaaw il suffit ñu gis kenn ci seen jigéen ku ñëw taxawoo ak ñoom ñu bàyyi bi yaasay laay ñun ak maam jotu mii bëri na lu daan xew ñoom ñoo yónnee woo la nga ñëw bu ñu la woowee nga ñëw ñu wax la nga bàyyi lépp loo jàppal seen i njaboot yi di seen i doom euh, ñeneen ñi fi des joxoon leen cër bu ne lu ñu la mos te gëm naa ne cër boobu mu ngi fi si jigéen ñi fi des tey di ay soxna si kër gi euh, bu ma limee suñu yaay maam Kumba wala ku mel ne yaay Ndey Faati Jeet euh, si ñu si gën a mag ak euh, suñu ñoom yaay maam Kumba Ndooy ak tànn seen bu rek ñoom seen balaa ak suñu yaay seen balaa ak ñeneen ñu mën a yóbbaale ñëpp si njaboot bi si ñi may wax yàlla may na leen sellate gi may na leen xel mi ak yëpp alxuraan nag dafa am lu ñu jàngal si lu war a tax ñu war a jàppane jigéen waruñ ko neewal ak ci dafa am seen soxna su baax su ñaan yàlla ne nag yàlla pour yàlla may ko doom ju góor jox xam bu ko yàlla mayee dina ko jël maanaam du ma wax yoole mais dina ko jël mettre ko au service yàlla maanaam mu nekk ci jàkk dina ko liggéey wa isqaati imraatu imran rabbi inni nasartu laka ma fi badni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiul alim loolu soxna si wax yàlla man day lii ma la ñaan muy soxna si muy ndoom eh, ji ne nga nga ko may te mu uuf ko nii maa ngi koy jël ko mu doon ko xamantene bu juddo dina ko def mu nek ci sa service di la doxal lepp lo xamantene te ji dina ko dina ko dina ko itéwo bi bi mu ñaané loolu yalla itam yalla nangul ko la nga xamantene ñaan naka mu dal di ci doli wax ne mu dal alquran ne tali ne wada at kha khalat rabbi inni waratuha unsa ba mu demee ba yalla may ka nak mu imbi la nga xamantene ëmbon nako na mu nekk yalla man day imbi waaye jigéen laa am maanaam mel ni sax kuy xaw néewal doole jigéen maanaam pour wax yàlla de maanaam am euh, am naa tuuti déception ndax man bi ma lay ñaan góor laa la ñaanoon waaye tey jigéen nga ma nga ma may mu euh, alxuraan daal li yëgali mu ne wallaahu axlamu bi ma wadat mu ne yàlla moo ko gën a xam moom li mu wax ne moom la imbi ndax yàlla ka may mu ne waaye wa laysa zakarakal unsa te xam naa ne itam yàlla xam na itam ni li nekk ci góor nekkul ci jigéen. mu daal di yeggali laaya yi daal ne euh, inni euh, inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina shaytaani rajiim laysa zakaruka kal-unsaa wa inni samaytuhaa Maryam mu nag tuddee naa ko Maryam mooy soxna mooy yaay Seydinaa Maryam jur indi Isaa inni samaytuhaa Maryam daal nekk nag maa ngi lay ñaan yow yàlla inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina shaytaani rajiim moo damay wax ne képp ku bokk si njabootu maam wala kuy wax ne si njabootuma Mariam nga bokk na nga def très attention ndax dafa am ñaan gu mu ñaanoon yàlla yàlla nangul ko ñaan gi te wanu ko ay sët foofu inni u'iizuhaa bika maa ngi lay ñaan moom nga muccal ko moom sama doom ju jigéen jii nga ma may te man góor laa doon ñaan muy Mariam maa ngi lay ñaan moom ak ay njabootam ay sëtam nga muccal leen si seytaane rajiim kon dama ne ku bokk si ñooñu boo toogee naan seytaane dama jàppoon wala dama juum euh, bopp yàlla nangul na ma Mariama ñaanam googu yàlla mayu ko fële ay set ndekete fii la ko may set kon képp kuy askanoo ci Seydina Limaamu en général na moytu di def loo naan seetaan moom ëpp doole ndax njabootu bàyyi laay normalement bu dee jàpp nañ ne bokk ci lii yàlla muccal nañ ci leneen nag lu ñu ci def ci ak ndimbal yàlla yokkal leen jàppale ji mu wax ne yàlla daal di koy nag dimbali ci doomam jooju moom góor la bëggoon yàlla may jigéen. mu mel ni ku xaw a xeeb la ko yàlla may mu ne fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin xasanin wa anbataha nabatan xasan wa kaffalaha zakariya kullama daxala alayha zakariya almihraba wajada indaha risqan qaala ya maryamu anna laki haza min indillahi inna allaha yarzuqu man yashaa bi xayri hisaab ñu taxaw foofu mu jël doomam jooju nag daal di koy jël dénk ka yonte yàlla zakariya muy doomam jooju di mariama xam ne moom góor la bëggoon yàlla may ko muy jigéen tudd Mariama mu jël Mariama moomu daan ne dinaa mottali sama yéene ndax dama ne woon bu ma ko yàlla mayee muy góor dinaa ko jël yóbbu ko ci jàkk di mu dem di jàppal di nettoyer jàkk ji ak yu ni mel dinaa ko jël du ma am benn itte si moom service am yëpp da dem def ko ci biir jàkk ji mu jël doomam jooju jox ko Zakaria Zakaria tekk ci jàkk ji mu ko fay liggéey jamono boobu nag nee nañ Zakaria saa yu ñëwee fekk Seydina Mariama ci biir jàkk ji daf koy fekk yor ay xeetu Euh, meññanteef ah. maanaam bu fekkee jamono ba mu ko fekk dafa nekk période hiver da koy fekk muy lekk ay ñamu été ma période hiver doo fekk ñamu été bu dee été la ko fekk da kay fekk muy lekk ay ñamu hiver foofu nag Zakaria donte ab yonente la mu nekk waaw yow lii ngay xewloo foo ko jële xaaral bu mu tontu ko rek min indillaahi si sama borom la jóge daal da nag inna allaaha yarzuqu man yashaa bi xayri hisaab yàlla moomu day mooy wërsëg ko soob lu amul benn estimation lu amul benn natukaay ndekete yàlla li mu nam ma ci doom jooju xam ne góor lañ ko ko ñaan may ko muy jigéen dafa am lu ci yàlla dëxëñ dama bëgg rek wane waat encore une fois cër bi yàlla jox jigéen te ñu koy xeet am lu yàlla nam ma ci lu mu war a génne jigéen jooju kii góor la bëgg yàlla may ko jigéen mu xaw a gedd ndekete am lu ci ginnaaw jamono di dox Mariama moom nekk ci jàkka ji ay malaaka fekk ka isqaalatil malaikatu ya mariam inna allaha yubashiruka bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa bnu mariam la yàlla yónni malaaka yi ni leen jël leen li nga xam ne mooy sama ruux bu sell gi ngeen dem ngeen solka sayyidatuna mariam mi muy ki nga xam ne moom la sunu mbokk nasaraan di woowee le fruit de l'immaculée conception doom ji juddu mu ne doom jooju nag tuddee nañu ko te boobu juddugul isa ibnu mariam isa doomi mariam pour wax la cër gi yàlla jox jigéen jooju xam ne xeeboon nañ ko yàlla ne léegi isaa mii du am baay man Diop laa sant ñu nekk non doo sant Diop yow yow yaa ngi sant ibnu Mariam turu yaay ji dina feeñ fa par force isa ibnu Mariam waaye mu si loolu mu ne wajiixan fi dunya wal min al muxarrabin dina doon kilifa bu ñëpp nangu ak téytéfam fii si àdduna ak yomal xiyaam gënu jëm moo tax bu seen isa ñëwee ne ëllëg ku mu ubbil la dugg war nga ko mën a gëm mu ne doom jooju ñu xawoon xeet ndax jigéen la sol naa ka kéemaan goo xamante ne Isa ibnu Maryam kilifa la doon fii si àdduna ak àllaaxir guy jëm waaye bokk na si ñi gën a jege yàlla mi la mu xaram yi doom jooju war a juddu te amul bàyyi yàlla def ko muy premier vice président bu ulil asmi bu dee mën nañ ko tudde noonu Mariama moomu ñu xeeboon ndax jigéen la te moo waroon doon góor la ko yàlla defal waaye yàlla yemul foofu ndax lu njëkk loolu yàlla yónni ne malaaka yi si moom ko isqalatil malaayikatu yaa Mariam wa taqarraki wastafaaki ala lisan alamin yow maryama sa borom mu ngi ñuy yónni ngir ñu xamal la ne moom day tànn na la laabal la dal di lay tànn si kaw jigéeni àdduna ma ne marta boobu ndax gënul woon marta ba nekk góor te am benn cër yaayam bëggoon na jigéen dëggoon na góor yàlla may ko jigéen waaye jigéen jooju yàlla dafa ko sax gën sax ndayam di jur tey gën jeneen jigéen jurul moom te loolu firnde bi ba mam limaamu di wax ak soxnaam yooyu su su bëgg sëriñ Matar dane woo na soxnaam su sell sa ak soxnaam su laab sa ke mu féetale wàllu euh, laabal gi mooy que yàlla waxoon démb ne nga inna allaha astafaaki wa taxarraki wastafaaki ala nisaan alamin muy sunu maam mariama démb di maam Fatima ngi fii tey kon seen alimaam comme ni ma ko waxee woon keroog si ngénte lii fii ngénte bâché di doomu bâché di mii dama ne woon si sunu réew mii ak feneen nit ku am xam-xam buy weddi yeneen ak seen alimaam mu juddoogu fi amu fi de alquran daf ne is qala allahu ya isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya wa mutaqiruka min allazina kafaru wa jaailu allazina tabauka fawqa allazina kafaru illa yawm alqiyamati ba fa aaya jeem dafa am lu ma si soxla loolu la yàlla wax yonte yàlla isa loolu la nettali yonente bi si alquran ne ba muy wax ak yonte yàlla isa ne dinaa la rey si deegu ndaw li mu si na ma mooy dama lay yëkkati mooy ascension bi nga fekk si ma ngir ma muccal la si way weddi yi nga bokkal jamono wa mu taqiru ko min lazina kafaru moy si way weddi yi nga bokkal si jamono wa ja'ilu lazina ka fawqa lazina kafaru illa yawm al-qiyamati man loolu la si intéressé dina def yow ñi la top yow ndal isa ñu gën ko dul ñom ba illa yawm al-qiyamati ma ñen ñoo gëmon yent yalla isa ñu ne ma nasaraani ñoko topon ko compagnon ñoo ñu ko toppoon ne yalla neena وجعل الذين تبعوا فوق الذين كفروا الى يوم القيامه دا لن ديف نين گن كودول يين با الى يوم القيامه غا ديف القران لا كنتم خير امه اخرجت للناس نمشي امه ينت يالله محمد فلا نينا كلا نيلا توپ نا ديف نين گن كنين كو نيوم با الى يوم القيامه ينت يالله محمد فين دي گن سلو ينت بي گن سلو يالله بين ني او خيتما گن سي خيدي يالله لا لن كنتم خير امه اخرجت للناس تخمر بالمخروق تنخون على المنكر defna sa xet bi ñuy xet wi gën ci xet yi kon foofu ku comprendrewul wala ku nanguwul nii Isa ibnu Maryam dafa war a feñaat ci jamono doon ab jullit di taal di doon taalibe kër Seydina Limaamu di premier xalifa da ngay mujj daal am benn kilifa bu mag ci réew mi di boroom xam-xam bu mag waaye di di ab saay-saay ci xam-xam daal di bind benn lettre bi ñu falee euh, Ratzinger le pape Benoît bi ñu ko pontifié def ko pape mu bind benn lettre ouverte publiée ko ci Seneweb wax ne mu ngi def euh, bienvenue au nouveau pape dal di wax ci biir waxam nak tagana na bi wax lu rafet ci yoon yoon ci chrétien de dem ba ci biir dal di wax ne waye nak ñu ngi xam le ne yonte yalla moy muhammad moy le plus grand homme de l'univers aw xeetam moy xeet bi gën ci xeet yi benn jeune prêtre moom dañ doon door dug dugg oh, de de ngasso bi dal di bind benen lettre ouverte le lendemain tontu ko nek man benn problème rek la am serigne bi mooy dama dégg ne muhammad mom nga ne moy le plus grand homme de l'univers te aw ummam nek communauté bi gën bi gën ci euh, communauté dama gis seen téere boobu ngeen moo leen ko indil mu wax ne yàlla wax naka ne wa jaa'ilul lazina tabaqo fawqa lazina kafaru ila yawmil qiyaama def naa ñu topp yonent yàlla Isaa ñu gën keneen ko ñoom ba ila yawmil qiyaama kon naka la yéen seen xeet boobu war a gën a xeetu yonent yàlla Isaa te yéen yéen ko seen téere bi ba tey jii nii kilifa ali xam-xam bi bëri bëri yëpp kooku mu mu ëpp xam-xam fuuf ba tey tontuwul xale boo ko euh, teg question pièce boobu ma ne ko nag bu ñëwoon fii si laay waxtaan ak ku mel ni Serigne Mambay Laay dina ko wan ne ko waaw dina ko wan ne ko ndekete ña yàlla doon wax naan wa jaa alul lazina tabaqu fawqa lazina kafaru ndekete mooy yéen kuréel bu yiw bi xam ne yéen topp si naay saa roolaay moo tax libaas nag feelu ko fii nekk kuréel bu yiw bi fawqa ngeen ku dul yeneen bi ñeena leen lu jiitu tey la yàlla noonu di ngeen si jot si moom loolu nag ab ñambaas la si doon ñambaas ngeen jéggal ma si guddal gi dama ko si bëggoon dool ndax ñu ngi si période Noël Euh, doon ko fàttaliwaat sama mbokku taalibe yi ngir ñu xam ne gëm nañ ko kenn amul yor nañ lu kenn yorul kon dañu gën a góorgóorlu si pas-pas yi waaye nañu gën a jox jigéen ñi seen cër kële xeeb nañ ko ndax jigéen la ndekete yàlla def na ko moo naroon jigéen ji gën si jigéen yi àdduna ba pare yàlla jox ko doom di xam ne ku dul yonte yàlla Muhammad moo la gën fil awwalin wa fil axirin muy yonte yàlla Isa donc ñu ngi yemale foofu kàddu yi di ñaan yàlla lépp luy njuumte loolu nga ne jib lépp luñ fi wax itam te muy rëcc rëcc goo dérangé na wala dara ñu xam ne kiy wax ab jàmbur doyadi la ko néew xam-xam doon jéem a góorgóorlu doon kilifa dénk ma dégg dolawaat leen eh, micro bi bàyyi sàmm ngeen jéggal ma maa ngi leen di sant bu baax si wétali ngeen ñu wétali ndax ku daan wétali sa kilifa boo amee foo wutu sa ñëw wétali la dafay dalal sa xel may profité rek di sant ñoom eh, waa Jàmmalaay TV eh, soxna Sadio sama yaay ñëw ànd ak équipe am ñoom Maguette ak Alsane sama doom di sant Selouba itam di sama xarit di jàmbaar si diine waaye di sant daayira bu góor ak bu jigéen bi di santaat bu baax sunu mag sunu xarit euh, sembar bi mi nga xam ne maam libaas moo ñu defal tawfiix ñu ñëw di fàttaliku sunu maam yu tedd yooyu ba mën fi waxtaan li ñu waxtaan di sant bu baax kilifa yi nga xam ne ñooy kilifay penc mi gis naa fi léegi délégué de quartier ak ñëpp waaye nag di yëkkati sant sant bu bu mag di ko teg ci loxo kilifa gi ñu fi uutu tey mi ñu wóolu dénk ñu euh, guddi gi di jaar si moom itam di sant sunu kilifa gii si jotaay bi defal bu rëy itam ñëw wétal ñu ci mom la bëggoon daanale bëgguma woon euh, ciof ko dama bëggoon daanal ci mom ndax li mu def lu reey la ci ñun bàyyi iteem yëpp te dëgmal ab programme mu war a def ngir ñëw wétal ñu fi te lépp li ko waral sëriñ mambay moo ko waral euh, fonk buñ ko fonk ak bëgg buñ ko bëgg tax na ñu ñëw wétal ñu ngir barkeem ñu ngi lay sant bu baax sëriñ bi si wétal gi ngeen ñu wétal yi di sant bu baax sama nijaay bay baara momit ci téeru gi ak teraanga bi ñu defal wétal ñu waaye di def une euh, kii peut être spécial sant spécial jëmale ki sama xarit yi xam ne maag ñoom ñooy ànd depuis bi ñu nekk xarit ñu bàyyi seen i soxna ak seen i activité yëpp si délai bu leen lañ ko yëgal ñëw wéttali ma guddi gi maa ngi leen sant bu baax bu ma ko tegee si loxo Momar Diagne ak Abdou Diouf ak Seydina Issa ñu yóbbaale ñoom Seydina Ben ak Baye Modou Guèye ak ñi si des ñëpp di wax subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalaamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin